ñu ngi lay nuyu monsieur Seck. Euh, maa ngi leen di fay Elisabeth. may fàttali suñu auditeurs yi ne ñu ngi dalal tey euh, Dame Seck moom mooy secretaire général fédération nationale association parents d'élèves ak étudiants au Sénégal monsieur Seck comme niñ ko waxee euh, sànq le 2 juin gi ñu dëgmal boo moyul xale yi dinañ delluwaat ci classe yi li ni mel nag nan ngeen ko jàngatee. waaw ñun de yaakaar nañu ni décision bi nga xam ne moom la ñu jël pour le juin ñu ubbi at classe yi. Mm-hmm. lu méngoo la ak li nga xam ne ni moom la ñu bëgg ñun li ñu bëgg mooy suñu doom yi bénéficier wu du droit à l'éducation lu ñu bëgg mooy le droit à l'éducation mu effectif à tout moment et sur l'étendue du territoire et pour tous nos enfants hmm. loolu moom la ñu bëgg loolu nag ci biir situation bi il faut que ni ñuy jël ay précautions yu mot précautions yu mot yu nga xam ne ni danañ dalal suñu xel xale yi ñu leen di jox dara jotu leen bi ñuy ñëw bëgg nañu bu ñu leen bu ñuy delloo suñu doom yi dara aussi bañ leen a jot. Mm-hmm. lépp lu nga xamee ni jëm na ci euh, yi nga xam ni moom la ñu tëral ni dañ ko war a def ngir mën a farlu aar doomu aadama yi pour ñu bañ a jàpp maladie boobu yooyu ñu motale ko fépp. wax nañu itam ni xale yi seen dem ak seen dikk lu jafe lay mën a doon waaye gouvernement bi jël na ay dispositions pour yombalal ko su nga xamee ni lu mën a nekk la mooy Dakar ak yenn ville mag yi ñeneen ñi nag ñi nga xamee ni ñoo nekk ci yenn dëkk yi am école de proximité moom lañu daan appliqué loolee dana tax ba ñoom duñu soxla am transport dañu jóge seen kër rek dox ndànk dem seen classe bëgg nañu itam lépp lu nga xamee ni mooy war a aar xale yi ñu jëfandikoo ko def ko ku ci nekk def sa xel ni mbir mi kat mbir mu grave la dama waroon def sama bopp ni man mii kat maa ngi virus bi te war naa fexe ba ba baña a wàll kenn et bu boobaa lépp luy geste barrière dama koy jëfandikoo ngir sawe sama bopp sawe ñeneen ñi loolu daal mooy li nga xame ni moom lañu xalaat ñun ni bu ñu ko jëfee ci ouverture bi jàmm dina am fépp ci biir Sénégal. kon daal yéen lépp lu ñu leen euh, dig yéen dal na seen xel. waaye nag dañ ñoo dig de waaye wax nañ leen leen saa yi ñu amee xel bu nga xamee ni dalatul danañu fexe ba suñu doom yi ñu téye leen. bien que bëgg nañu bëgg nañu xale yi jàng waaye ci jàng bi na ànd ak seen wér-gi-yaram loolu moom la xalaat. ñu garantiral suñu doom yi ni ñii kat danañuy jàng si waaye danañ fexe ba danañ leen aar kaaraange yi ñu natt yëpp yu nga xamee ni moom leen moom la ministère de la santé wax danañ ko jëf ngir sàmm leen sàmm seen seen seen seen wér yaram jox leen ñoom itam xalaat bu nga xamee ni bu ëllëgee danañu farlu ngir fexe ba dara du leen jot ndax duñu def dara lu nga xamee ni dana tax ñu mën am virus bi fexe itam lu nga xamee ni dana tax ñoom itam ñu ñu ñu sàmm ñeneen ñi bu fekkente ni mën nañoo yor virus bi. loolu daal. Mhm. Euh, yaakaar nañu ni bu amee incha allah euh, xel dina dal daal te lépp dina baax. wax nga ko nee nga gouvernement jox na leen nag ay assurance ci assurance yooyu bokk na ci li naan mobilité bi xale yi di leen jëlee euh, bërëb yóbbu leen école delloo siwaat leen ndax yaakaar nga ni gouvernement mën na li ni mel. Euh, yaakaar naa ni gouvernement bi bu ko mënul woon du ko wax mën na ko ci. mbir yi yemul rek ci dakaar parce que. à l'intérieur de la mën na ko mën na ko ci fenn. Uh-huh. waaye nag da ngay xam ni école du mbirum gouvernement rek. Uh-huh. ak communauté bi ñun xam nañu ni bu lu gouvernement bi mënul te ñu ñun ñu mën ko danañ ko def lu gouvernement bi mënul te ñun ñu mën ko danañ ko def lu gouvernement mënul te fekk lu nga xamee ni ci coobareem ñun danañu fexe ba fépp fu rëq-rëq nekk ñu jéem ci indi saafara ngir suñu doom lañ koy defal ngir aar suñu doom moo tax ñu koy def. te danañ ko def ci biir dëkk bi est-ce que même mesures yi ci ci dëkk dëkkaan yi dans le monde rural. est-ce que même mesures ah, fii Sénégal sensibilisation bi def nañu ko. fexe nañu ba nit ñëpp xam maladie bi naka la ñuy defee pour aar doomu aadama yi. Hmm, si jàng bi xale yi fas yéene jóge dëkk ba dëkk dem jàngi état tamit ban mesure la jël ci ñooñu. ñooñu euh, incha allah am na benn. benn benn benn prédisposition bu ñu jëloon. Mhm. ay numéro téléphone yu ñu joxe woon ngir ku ci nekk nga wax béréb ba nga nekk ak béréb ba nga war a dem ñu seet au niveau des gouverneurs naka la ñuy def ba yóbbu xale yi yooyu yëpp bokk na ci assurance yi nga xam ni joxoon nañu ko jàngalekat yi ñoom itam danañu leen wax ban IEF lañu ñu war a dem fu ñu nekk. ak na ñuy fexee ba ñu mën a yegg ci foofu béréb bi nga xam ne foofu la ñuy jàngale. est que état tey jii balaa mu doon euh, jël xaalis di dugal ci transport ñuy jëli xale yi di leen yóbbu mënul ko woon dugal euh, ci li nga xam ne mooy plateforme yi mu créé déjà daal di organiser secteur bi ba xale yi mën a toog seen kër gën a euh, jàng waaye ñu élargir ko def mayage loolu xel yi jógewul ci loolu pour améliorer plateforme yi ñu ngi ci. service bi nga xamee ni mooy toppatoo loolu mi ngi ci di liggéey mais nag li nga xame ni moo war a nekk la répartition budgétaire loolu état bi moo koy def selon ces décisions yi nga xamee ni moo jëm ci jëmale fii xaalis bi wala jëmale ko fale waaye li wér ba wóor mooy importance su plateforme yi xam nañu ko bëgg nañu mu gën a am njëriñ ci xale yi bëgg nañu aussi mu gën a tas ba nga xamee ni fépp la mën a nekk te d'ailleurs sax ñi nga xamee ni mënuñoo am plateforme bi fexe nañu ba leçon yi nga xamee ni moom la ñuy joxe ci classe d'examen yi dañ koy photocopier au niveau des académies di ko distribuer ci fi nga xamee ni wóor nañ ni ñooñu amuñu électricité te mënuñoo jot ci plateforme yi. Mhm, toog ngeen ci taabal bi waxtaan ndax euh, ba ngeen di waxtaan ak autorités yi xamal leen nañ leen ne euh, ñoom seen décision c'est appuyé par des décisions de spécialistes. waaw loolu moom wax nañu ko parce que xam nañu ni lépp lu ñu sumb fekk na jot nañu euh, li nga xamee ni moom la borom xam-xam yi ci màcc boobu wax ngir mën a sàmm suñu doom yi wala ñoom ñoo ñu gën a xam loolu. bu ñu waxee ni lii lañ ngeen nga war a def pour moytu lii lii ngeen war a def pour am lii loolu moom lu nga xamee ni mi ngi fi te saa su ne ñoom danañu di nemmeeku borom xam-xam yi ngir décision yi ñuy jël mën a méngoo ak li nga xam ni moo war. le li ci des bariwul te tey ji enseignant yi euh, yoon waroon na mën a nangu ñu jël leen tey defal leen seeni test am na wala déet su ko defee ñu gën a euh, yokk kaaraanga gi wala. am na wala amul. loolu xëy na peut-être mënagul am léegi ndax enseignants yi nekk gu ñu en contact avec euh, euh, ñi nga xamee ni ñoom ñooy waa santé yi nga xamee ni ñoom ñoo am jël décision ni danañu def contrôle boobu. Ah, waaye li wér boobu mooy ki nga xamee ni yaa ngi ñëw waaw mais bés bi nga xamee ni. Uh-huh. bés bi nga xamee ni mooy rentrée bi. Uh-huh. danañu seet test yi ñuy def avec euh, seen appareil boobu ñu seeti température. bu fekkente ni am nañu ay dut ci benn doomu aadama danañ ko wax ni ko na dem ñu seet jëm koo seet mettre en observation loolu moom dina am xëy na peut-être amul en aval mais mhm. wax nga ko sànq am na ay enseignants yi nga xam ne dañoo am ay maladies chroniques ñooñu duñu jël lii di. risque exposé leen mhm, duñu jël risque exposé leen tey jii est-ce que tamit du gàllankoor li nga xam ne moom mooy euh, système bi ndax Sénégal yàgg nañ cee gis manque d'enseignants tey jii est-ce que loolu du ko gën a yor. léegi xam nga benn classe rek moom mooy fonctionner. mais dañ koy diviser. dëgg la nag classe bi dañ koy tas. Mhm. ak lu ñu ko tas tas tas tas tas. ña fay jàngale war nañoo mën a motale njàng mañ fay def te ay nit ñu xarañ ñoom la ñu amal affaire muy jàngale jàngalekat yi ñu def actuellement nii yi ngi ci école yi di xool seen emploi de temps naka lañu koy defee ñu ci bare man samay doom yi nga xam ne dañuy enseigner nekkuñu jóge nañ sama kër pour dem seen école pour xool naka naka la ñuy def pour mën a organiser emploi de temps yi pour que nit ñi ñu mën leen a ñu mën leen a saa jox leen li nga xamee ni bi leen war pour ñu mën a dem defi examen yi. Mhm. ñi feebar nag ñoo xam ne ni ñoom dañ leen di jégal ñi nga xam ne dañu am asthme wala ñu am maladie ñoo ñu wax nañ leen dañu toog parce que seeni jàmm mooy suñu jàmm dañu bëgg bu ëllëgee ñu mën a continuer di jàngal suñu doom yi. Mhm. te itam ñun ñëpp Sénégal doomu aadama bu ci nekk war nañoo fexe ba. ñu ñu sàmm sa wér yaram bañ la dugal ci lu nga xamee ni dina la jox loraange. le 2 juin yàggul xale yi dinañ dellu école. bu ci topp bu yàggul tamit ñu dem examen tey jii foogu leen ne teel na pour ñu jox xale yi li nga xam ne mooy examen yi. Euh, xam nga affaire examen dafa am ñu nga xam ni ñoom ñoo koy toppatoo te saytu la ñu sukkandiku ngir mën a jàpp ay dates yi. li nga xamee ni moom la ñu war a jàng muy seen programme defe naa ni bu fekkonte ni du ñu ko mën a yeggale bu fekkonte ni amul woon benn stratégie bu nga xamee ni xale yi danañ leen jox xam-xam bi war pour que ñu mën a dem ci examen yi mën a def question bu nga xamee ni posé nañ leen fi ñu xam ko loolu kon kenn du jël date yooyu kon dañoo war rek ñun sukkandiku ci li nga xamee ni borom xam-xam yi ñoo koy wax borom xam-xam yi ñoo ñoo ñu sax walla ñoo saa gouvernement bi pour ñu jël décision boobu. bu boobaa nag lu baax donc la ñuy jural ëllëg. kon yow daal jàpp nga ne xale yi am nañu bagage bi leen mën a permettre ñu dem defi examen. normalement war nañ koo am bu ko amulee it ci diggante bi ñi nga xam ne ñoo leen di ñoo leen di jàngal danañu fexe ba li li li ñu amul ñu ñu jox leen ko ñu amalee trou yi nga xam ne ñoom ñoom ñoom ñoom la nemmeeku ni ñii lii ak lii ak lii war nañ leen ko gën a leeral ngir mu dugg bopp bu baax. loolu moom mm-hmm. wér na ma ni ñi nga xamee ni ñooy jàngalekat yi am nañu capacité bi am nañu volonté bi te it yaakaar naa ni dinañ ko def na mu waree. gis nañu diir biñ toog ñoom xale yi ci plateforme yi euh, ñu leen di jébbal li di cours yi est-ce que tamit nañ ko doon jébbalee yow gis nga ne war na ndax du ñëpp ñoo ciy jotandi. waaw loolu li nga wax moom loolu lu am la xëy na ni ñu koy jébbalee cours yi dana am ñu nga xamee ni du adapté wu ci ñoom dana am ñu nga xamee ni neneen lañ leen waroon a jëlee ndax booy jàngal nit normalement da nga ko war a xam am tuuti connaissance ki ni nga xamee ni moom noonu lay noonu lay noonu lay noonu lay noonu lay acquérir ay connaissance mm-hmm. léegi plateforme bi non seulement am na mais am na itam rajo yi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi wax seen rajo communautaire am na ñu nga xamee ni maître CM2 la dañoo dem waxtaan ak seen i élèves yi nga xam ni mën nañoo jot ci ñoom ñu xëy na ñëpp amuñu téléphone mais ñu seet ci seen kër kan moo ci am téléphone bu am WhatsApp ñu leen di yónnee ay leçons di leen yónnee ay devoir di leen yónnee ay corrigé xale yi bu ñu liggéeyee ñu jox ko seen seen seen seen seen seen seen parents yi ñu yónnee ko maître bi. loolu moom ñu ngi ciy gërëm képp ku nga xam ni def nga ko ngir mën a yokk xam-xamu xale yi. leneen am na euh, collectif euh, des gouvernements scolaires taxaw nañ tem ne ñoom ànduñu ci benn yoon tey jël nañ position ne duñ dellu. Euh, classe xam nga mbirum gouvernement scolaire. Mm-hmm. doxee na doxee na na école ba la am baat dëgg la xal suñu suñu xale yi war nañu am droit à la parole mm-hmm. mais am na fu nga xamee ne nag kilifa yi ñoom ñoom war a war wax kilifa yi mooy ñan mooy état bi. mooy académie bi mooy maître yi mooy directeur yi mooy mooy mooy parents d'élèves yi. kon daal mooy fii laajoo leen seen avis ñoom. ñoom daal. Mhm. wax nañ leen ni leen li ngeen di kaas mooy conditions yi ñu réunir ba nit ñi leen joxe woon ñu delloo si leen te dara du leen def te loolu am nañu ci am nañu ci yàqim ni gouvernement bi li mu ñu digal bu ko defee incha allah du leen bu leen am benn inquiétude loolu wax nañ leen ko. kon daal jàpp ngeen ne lépp yemb na jamono ji ngir xale yi mën a euh, dellu ci yaakaar nag yëpp lemb na yemb na waaye nag ci doxalin am na lu yembul nga jéem seet nan koy defaraate ba mu yemb parce que dangay seet par étape ndax li nga li nga bëgg am nga ko boo ko amulee nga seet na naka nga ko naka naka nga koy wuutalee ak beneen beneen beneen pexe. Mhm. loolu moom danañ koy def lu yemb rek incha allah seet naka lañ def pour yembal ko ba ëllëg. duñ ci am benn benn benn benn loraange mhm. merci beaucoup monsieur Seck. merci monsieur Seck may fàttali suñu auditeur ni Dame Seck lañ doon dalal mooy secrétaire général bu fédération nationale des associations de parents d'élèves et étudiants du Sénégal FENAPES merci beaucoup.